yàlla guddal seen fan mission bi nga xam ne moom la seen ni maam teg seeni nodd yàlla nañ ci am seen gërëmu maam yooyu ñu représenté ñi ngi sant tamit askanu Sénégal bi nga xam ne ñoom kat ku xool Sénégal démb xool Sénégal tey jii lii ñuy dund ñu xam ne lu bari changé na ñi ngi toog seen kër wàcc uuf seen njaboot ñu ngi ko defee ci dal ci gëm yàlla ak ci ndigal bon askanu Sénégal gàcce ngalaam ñu leen di sant yéen ñépp waaye lii yépp suñ ko gisee mooy ku ci nekk ci ñun responsable nga ba xamné li ñuy xex mucc kenn mënu cee mucc lo dul yalla muccël ci responsabilité bobu képp kuy sénégalais defe naa nii nga xam ne mooy comportement yi toog seen kër wone na maturité mooy ab mat ci peuple sénégalais bon peuple sénégalais gàcce ngaalaam ñi ngi ñaan ñun ñëpp feebar bii nga xam ne tey téye na diine téye na nguur téye na lu bari téye na économie téye na dem beeg dikk bi téye na lu bari ñi ngi ñaan yàlla nañu ko yàlla teggal bi jaayal Moustapha mi nga xam ne suma ala man xaysu mazaza marat yabrah bila bu in wafa zabil xaret moom mooy tabibinal hakim yi mooy doktooru doktoor yi moo gën a xarañ ci doktoor bi yal nañu teggal teggil musiba bii nga xam ne lompoñ nañ ci sonn nañ ci yàlla na ko fi génne ci àdduna ñu ñëw tey nekk ab ndongo ndongo daara ndax wóoruñu ne suñu taalibe mat na indi suñu contribution nar koo indi ci Biscuiterie yi ngir feebar bi yàlla musal ñu ci moo tax ma xalseta koñ bu nekk ci Biscuiterie yi dinañ fa def benn siwo boo xam ne lépp a ngi ci biir dina am saabu dina am madaar dina am lave-mains solution hydrogénique dina am eau de javel képp koo xam ne yaa ngi duggati ci biscuiterie muy Cité Bissap ñaari tali bopp Grand Dakar xayma képp koo xam ne yaa ngi ci duggati dinga gis siwo bu ñu def sa bopp koñ ñu lay ñaan nga raxasu si balaa ngaa dem sa njaboot loolu nee nañu way màcc yi ci wàllu santé nee nañu mun na tax ba feebar bi duñu lottal ñu ngi koy def nag addiye Serigne Touba bañ ko defee addiye Serigne Touba lañu amatul xaj ak seen ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a utiliser amul tarixa amul diine kuy jullit kuy mbindeef ñu ngi lay ñaan soo gisee lii nga xam ne mooy kit sanitaire yi nga xam ne gel ngi ci lépp loo xam ne soxla nga ko boo ba doo soo jógee ba dugg biir Biscuiterie yi di ko fekk ci biir sa koñ sa bopp koñ demal nga saafoonteeg ñi ko yor nga raxas sa loxo ba mu set soo raxasee sa loxo ba mu set ñu jox la gel hydrogénique bi nga diw comme saa doo yóbbaale dara sa biir koñ sàkkantuma laaj nga koy yóbbaale sa kër ñu ci sant ñëpp di ñaan yàlla yal na fi feebar bi jóg yal na fi gaaw a jóg ndax kat ñun nangu nañ ko suñu yaakaar moo ne lii yëpp li yàlla di wàcce ci ñun jubluwu ci lu dul la sang bi waxoon man amaral ibaade bi du waay liyat fahon bihi anil balaay dafa bugg rek ñépp xam ne lépp luy balaak musiba bu tegu ci doomu aadama moom yàlla bihi ci darajaam anil balaahi moom rek moo ñu ci mun a musal bon yàlla nañu ci yàlla musal ci darajaam si dajale sang ba si daraja suñuy kilifa diine yi ci si darajey suñuy waajur si darajey julli yi ak nangu yi ci darajey lépp loo xam ne jëf ju baax la ñu ngi koy def